talen ak jamu mbokki internet yi safo di setan bus MTV. TV cant ak ngeureum ñanalen ci top bi ngeen di top sen bi ñu daal di dikk nag si xibaar yi nga xamne nak gën na fe feus ki nga xamne modi di Aliou Sall nek frère si président Macky Sall mom nak daal di nay addu tamit gannaaw ba conseil constitutionnel nak daal di dogalee dàq gi nga xamne ki di président Macky Sall bëggon nako dak yi le élection mu daal di nag yàqu lu ni mel. gàntal dogalu kii di président Macky Sall bi nga xam ne jëloon na ko moom Alioune Sall nag di xamle que ne nag alhamdulilah moom nag dafay sant yàlla bu baax a baax ndax kat conseil constitutionnel jël na ndogal bi gën ci Sénégal mbooleem nag njabootu républicain yi mbooleem woy ñi nga xam ne nag ñoo nekkee ndejoor wala ñu nekkee càmmoñ yi dañoo war a àndandoo wàcc ci suuf campagne ngir sunu candidat bi nga xam ne nag moo di Amadou Ba. lii rek moo mën a doon li mën a sàmm ndono li nga xam ne nag am na solo lool te njiitu réew mi di président Macky Sall daal di ko fiy bàyyi moom mi nga xam ne Aliou Sall daal lu ni mel daal la daal di xamle ginnaaw ba conseil constitutionnel nag daal di annulé décret bu président Macky Sall ngir bëggoon a annulé yi yile élection ñu waroon ko amal le vingt cinq février moom Aliou Sall daal gis-gis bii daal la si daal di xamle moom daal jàpp na ne daal décision bi daal mooy bi gën si Sénégal